conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Babacar Gaye mi nga xam ne bokkoon na ci parti démocratique sénégalais te daal di say génn moom ak Omar Sarr ak maître Amadou Sall daal di taxawal seen parti bopp moom Babacar gay nee na du ñoom ñoo jóge ci Abdoulaye Wade waaye Abdoulaye Wade moo dem ba mu yàgg maanaam bëggatu leen Babacar Gaye ne askanu Sénégal Abdoulaye Wade mi nga xam ne maanaam moom ngeen xamoon yàlla ak yàlla yi maanaam bokkuñu moom Babacar Gaye ne nag suñu parti ñu ko taxawalee taxawuluñu ko ngir dem àndi ak Macky Sall waaye dañu ko taxawala ngir nag jot ci réew mi yéen a kaay gii de Le Quotidien xëy ci tournée économique bi njiitu réew mi di Macky doon def ci diwaanu Kaolack ak Kaffrine ak Fatick tournée économique boobee yéen a kaay gi na ma ko gisee maanaam ab campagne dana njiitu réew mi di Macky Sall ci campagne la nekk yéen a kaay gii de la mu xëy di ñu xamal lan ñu tournée bi njiitu réew mi di Macky Sall en tout cas nit ñi génn nañu fu mu romb ndiiraan mi yëpp topp Macky Sall waaye mboolem loo xamante ni ay mesure barrière la amul lenn loo xamante ni Macky Sall daan na ko say respecté ndax ci Sénégal dañuy tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum rassemblement waaye nag Macky Sall dafa mel ni loolee nga xamante ni tere nañ ko nga ñëm nekku sa ndax ko gis mobilisation bi nga xam ne moom la Macky Sall def ak fu mu jaarandiraan mi yëpp génn xam ngeen ne mesure barrière yi Macky Sall daf koo daal di salfaañe njiitu réew mi di président Macky Sall ci tournée agricole nga xam ne doon na ko woo na ñi nga xam ne ñooy homme d'affaires yu réewum Sénégal maanaam secteur ngir nag ñu dugal seen loxo ci mbay mi wàllum sàmm gi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu na Macky la doon def maanaam mën naa ñàkk mën naa ñàkk ndax jamono la joo ne askanu Sénégal ñoo ngi jànkonte la ak coronavirus bëri na ci askan wi ñoo xamante ni ñoo ngi ci ndox mi maanaam wàllu mbënd mi Macky Sall naka def ak gàngooram république bi yépp génn dagg def am ndiiraan topp ko yor seeni quatre quatre loolee mënoon naa ñàkk Macky Sall dafa mel ni li ko neex maanaam mooy génn mbooloo mi topp ko muy jaayo njiitu mi di président Macky Sall moom ci boppam nee dafa bëgg askanu Sénégal gi yëpp ne leen mbay mi nag du caagi nit ñuy bay rek la yitte la waaye askanu Sénégal war nañoo mën a jaare ci mbay mi ngir suqali ko yéen kaay gi di évidence ñu fekk ci yenn ci ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi dëkk ci diwaanu lax ñoom nag nee nañu Macky Sall ci boppam respecté wu leen Macky Sall dafa yeb waa Kaolack te nag dalal gi nga xam ne dalal nañ ko Macky Sall mérito wu ko ndax Macky Sall faalewul askan wi nga xam ne ñoo fi yeewoo te bi mu ñëwee Kaolack waroon naa mën a dem seeti ñi loru ci mbënd mi waaye Macky Sall defu ko yéen kaay gi di Sud Quotidien ak L'As ak Vox Populi ñu xëy fekk fa ay miiru ñing mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire benn bokk yaakaar nee na Macky Sall am na sañ-sañ juridiquement def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal loole du débat nee na mbir mi yëpp lijjanti nañ ko moom ay miiru ñing nee na askanu Sénégal nañu déglu conseil constitutionnel yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy na njiitu réew mi di Macky Sall lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi nga xam ne moom la ñu koy tuumaal mbir mi ma ngi gën di bu ko defee ci réew mi am nañu bëri ñoo xam ne mbir mi du leen bett yéene kaay gi di mi quotidien xëy samp ab laaj na ay miiru ñing mi nga xam ne nee na Macky Macky Sall war naa def ñetteelu mandat ko dàq xam ne gisoon ne wax nañ ne Macky Sall wuru koo def dañu leen a dàq ku si mel ni Moustapha Diakhaté Souri Kaba ak maître Moussa Diop ñoom dañoo waxoon ne Macky Sall wur nee na ay miiru ñi ngi mi nga xam ne nee na Macky Sall am na sañ-sañ def ñetteelu mandat lan la ñu ko war a def dañu koy dàq waaw wala déet yéen kaay gi du source a nee na ay miiru ñi nga ak kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko amul lenn loo xamante ni dana ko ci daal di fekk yéen kaay gi Walf Fadjri ñu fekk fa Malick Gakou la mu xam le nee na ñetteelu mandat loolee di ko wax ci réewum Sénégal yépp askan wi la ndax loolee faux débat la moom Malick Gakou ci biir yéenekaay gi nee na nag li ko jaaxal ci réewum Sénégal mooy soo waxee rek ak njiitu réew mi ñu ne la yow doo ab opposant Alioune Tine nee na bu ñu waxante dëgg sunu justice bi ci Sénégal dafa malade maanaam dafa feebar wopp moo ko dala yéenekaay gi ñu fekk fa maître Assane Dioma Ndiaye nee na woolu gi nga xam ne ñoo ngi koy woolu Souleymane Teliko mi jiite magistrat yu Sénégal dañu ko bëgg a noppiloo di ko xoqutal waaye tollu nañ jamono joo xam ne attekat yi kenn mënu leen a source a xëy di ñu xamal laan ñu maître Malick ci woolu gi nga xam ne woolu nañ ko Souleymane Teliko dafa na yoonam nekku ci waaye journal bi nee na ministre bi su waxee loolu wax na la ci ginnaaw dëgg ndax texte yi si boppam ñoo ko weddi yéen kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Seydou Gueye la mu xamle nee na Ousmane Sonko doxin wii nga xam ne moom lay doxee maanaam su ko bàyyiwul dina yeex a jot ci réewum moom Seydou di Libération xëy di ñu xamal laan gi maanaam musiba ak mbelengaan ma nga leen di topp maanaam génn guñ ci mball gi ndax nag dañu leen di tuumaal lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar cay opération bancaire yoo xam ne suspect la yu ñu ñaaw njort yoo xam ne cinquante cinq millions de dollars moo ci nekk ubbi wan nañu ci ab enquête ba tey ci biir yéen kaay gi mu ñu xamalal ñu scandale musiba ma bokku mbëggu rëy maanaam moo xew ci benn internat boo xamante ni ca mbaaw la nekk directeur bi nag dañu koy tuumaal ne da doon fóonante ak benn xale bu jigéen boo xam ne fukki at ak rek la am ab ba pare di ko yónnee ay photo yoo xam ne da si doon simmeeku ba na dong ak ay vidéo yoo xamante ni ay vidéo porno la seen directeur bi da doon jël ñoxor njaay ñoxor njaay la doon jël doon ko dugal ci gémmiñam gi yéene kaay gi nee na directeur boobee nag teg nañu ko loxo li ñu koy tuumaal mooy détournement de mineur yéene kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu match bi doon dox diggante Chelsea ak Liverpool Sadio Mané moo ko toj ci ñaari but la dugal stade yéene kaay nee na Edouard mi nga xam ne ñoo ngi ko doon annoncé dem Chelsea ba léegi nii mbir mi am na lu ci gàll goosee